day jàppandal lépp lu jafe. moom Taysiir moom Taysiir Ansir. man de dama ko def sama fasida ndax li tax. Mm-hmm. damaa mos a toog ak kilifa goo xamante ni bii moo euh, mook sunu jur ba yaayam ak sunu wayjur ñëw bokk lépp. ndeysaan Ablaye mii jaar na ci daara muy Serigne Souleymane Gueye. Mm-hmm. Baye Souley Gueye ci Baye Souley Gueye Njaareem. dafa am bis ñuy waxtaan ci Taysiir Ansir. Mm-hmm. mu ne ma Cheikh Issa Diène day fu ñu ko mosaan fekk. mu toog di tari dañuy jàpp ne alxuraan la daan tari waaye tey sulu ansi la daan tari ndax suñ tubaab ko joxoon <laughs> est-ce que muy lu am solo tey siir dafa nekk lu am solo waaw mos na ma demee suñu soi Guèye mm-hmm. ci njaareem ci njaareem jamono boobu laay waaj a jóge fii di ñëw mm-hmm. bi ma ñëwee di ko nuyu fekk muy jàng ab tey mm-hmm. ma toog bi mu noppee mu ne ma daal di yëkkatéri bi daal ne ma lii de lu ma tabje tabje dinaa ko jàng suba gi lu ma tabji tabji dinaa ko jàng ngoon gi daal ne ma jox naa la ko muy sa muy muy sa xasida man suñu soi gi moo ma ko te maa ngi ko fekk ñoo jullee doo timis ci këram ndax mën nga cee dimbale mbokk yu seetaan euh, ñu ci tuuti rek ndimbalul Taysiir ndimbalul Taysiir sëñ Assane ci ki nga xamante ni bii moo koy jàng mm-hmm. bi ci jiitu mi mooy yiw àdduna mm-hmm. ak yiwu àllaaxira mhm. dañ koy njëkk am aaju faju àdduna àllaaxira suñu borom dala ko ciy defal mhm. di lijjanti dara mu tëyit du am mukk te lii ñu wax ni lu ñu xam la lu ñu sedd la lu ñu jëf la te lu ñu gis la mhm. ndax maa la ko doon leeral bu yàggut di léegi nii ci suñu waxtaan doon naa bëgg loo xamante ni bii wallaahi la xasim fajar gi guddi gi ma tëddee jàng ko dañ maa wan loola te nañ ma ko wane it wallahi lancim ba ma demee foofu noonu laa ko amee te damaa ñaan suñu ne ko yàlla na nga wëlbati xoli yi yéefar yi nga xam ne ci laa jëm te di sàkku jëlee ci ñoom ba ma demee sax wallahi lancim maanaam yomb gi sax daf maa jeexal man ma xam ni kon xasida yi Sëriñ Tuubaa yi boo ci jàpp te def ko muy sa xasida da lay jëriñ adduna da lay jëriñ àllaxira Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ni dafa am bis mu woo fere yëpp ne leen kenn ku nekk na indi xasida gam am. Mm-hmm. taalibe yëpp kenn ku ne dem jëli xasida gam am daal di indi sëriñ bi leen waaw day moom day sàllaaw day lii day képp koo xam te ne sax na ci di ko jàpp bis bu la yore ci bàmmeel day ànd yow soppeeku jëmmi doomu aadama di la wittil si biir bàmmeel ba saa di taxaw. muy lu tax. Ah, mbokk yi moom. ñu mu war a tax muy lu tax ñu war a uh, fonk xasida yi. ndeysaan waaw mu ngi tax ñu war a fonk xasida yi eh, ndax eh, sëñ Assane xasida mm-hmm. alxuraan mooy bàyyam mm-hmm. képp koo xamante ni bii bëgg ngaa sax ci ak njub mm-hmm. bëgg bu ëllëgee bu muree sa mbalaan biñ la sànge woon buñ ko ubbee suñu borom jéggal la da nga sax ci jàng alxuraan ak jàng xasida yi ndax njariñul àdduna ak njëriñu àlaxira sëriñ bi nag coono bi mu ci daj ba am ko. Mhm. nun ñii ñoo war a téye nag lii. muy xaside yi muy xaside ndax bu nu ko téyewut kaneen du jóge fële ñu ko téyel mhm. ndax jamono yi ko sëriñ bi def bu fekkonte ne wóor na ko ne duñ ko téyel ay malaayika ñoo koy jëw jëlee ko wala ay jinne yoo xam te ne ay taalibi sëriñ Tuubaa la ñu doon kon ndokk bi ñu ko sëriñ Tuubaa joxee ñu téye ko te nangu ko te fonk ko te di ko def mbooleem jànkatu xasida boo gis sëñ Tuubaa teral na ko. loolu dañ ca doy misaal. mboolem jànkatu xasida boo gis rek sëñ Tuubaa teral na ko. Mm-hmm. Mm-hmm. ñii ya ngi yori étage ñii ya ngi yori oto ñii ya ngi yori oto yeneen oto yu ko yuñ gaare te xasida yi lañ ko mm-hmm. lépp lu waay sàkku wala mu di ko bëgg soo ko ci xasida yi mën na ko am. ndax dafay wuutu sëriñub tërbiya day wuutu ci yow li nga xamante ni bii moom ab sëriñ war a def ci yow. sëñ bi tarbiya est-ce que mi ngi am ba léegi tarbiya bi tax ñu naan tarbiya. waaw sëñ Assane tarbiya ba léegi mi ngi am. Mm-hmm. waaye nag ci jamono yu njëkk yi la gënoon a bari ndax ku mel ne Serigne Saliou bi mu fi jógee daanaka boo xoolee. mën ngaa wax ni tarbiya daanaka bu jeexul tamit wàññeeku na. Mm-hmm. Serigne Saliou. ndax moo ni ni Sëñ Tuubaa daan yare na la noonu la daan yare. day taqoo gone yi di def ci ñoom loo xamante ni bii ñoom dañuy toog te duñ ko xam. ndax tër bii dafa ajoo taqoo moo tax sëñ Saliou daan taqoo gone yi daan leen yar ci jëmmi boppam ndax nit bala nga koo mën a yar dangay yaru ba noppi. lii bu cher waxoon ni wa mastaxamtu fa maa ka lakk istaxim si naa lii loolu la waxoon jubuma de moo tax mënuma jubbanti. Mm-hmm. ku jubut mënta jubbanti. waaye ñu jub ñoo mën a jubbanti Serigne Saliou nag daa bokkuñ ci loola. ndax dafa nekkoon jëmm jox boo ko ne jàkk xool rek sa xel dem sa digg ak sa borom. Serigne Saliou. ni kii noonu képp koo xamante ne takkoo nga ak wasila wi nga xamante ni moom nga jëbbal sa bopp. Mm-hmm. lam lay digal nga di ko def lam lay tere nga di ko bàyyi. na la wóor ni tër bi nga xam te ne dong nga yaa ngi ko def ci yàlla na la wóor ni yaa ngi ñoom a yem waaye ndax loolu mi ngi amati ndax jamono yi toll nañ foo xamante ni bii kenn gëmatul dara wala gëm-gëm bu néew ngi doon ndax li suñ Tuubaa waxoon ni taalibe yi de ñeenti ñii rek laa bëgg ñu moytu ko. Mm-hmm. te it ñeenti yooyu ci laa bëgg ñu nekk ca. muy dëggu ci sopp sab sëriñ bu la digalee nga def bu la teree nga bàyyi ba ju topp mooy bur ko di nga donte sa xol la nekk. Mm-hmm. te léegi da gis sëriñ bu wax ay bi jóge fële waxaate wax ju ñaw ba pare na ay murit lañ lu mat a bàyyi xelam la. Mm-hmm. ba ci topp mooy nga bañ a ndamu ndamu mooy nga jàpp ne sëriñ bi yaa ko ëpp daraja ndax sa alal. Mm-hmm. te lool day dal ab bi day jébbalu ci nit suñu borom ubbil ko bunti xéewal sëñ bi néew doole lool mu xeeb ko ba wàcc ko fa dem wuti fa neen. loolu day am. te mu wóor ko ni te moom bu ko wóoroon ni kii nga xam te ne wan na ko ginnaaw dem bi jébbal feneen leer na ko ni mën na ko mën na koo leer ni daal lu sëriñ bii nga xam te ne bii yur dara moo gën yem kayemu jëm ndax ki àdduna rek lay wut te kii àllaaxira lay wut